yëpp di ndokkeel bu baax suñu mbokk yu baax yi doon waxtaane jataay bi te wax fi kàddu yu am solo yoo xam ne ku ko teewlu ku ne jariñu nga ci te junj nañ fi yoo xam ne it yu mat a yaatal ci ay lu jëm ci wàllu liggéey nu amee solo ak nuñ ko war a yaatale ñu ngi leen ci ndokkeel di ñaan suñu borom Euh, def kàddu yooyu àgg ci ay nopp yu koy dégg te jariñoo kàddu gi ma yëkkati nag man xam naa dana xaw doy waar maa ngi bokk ci délégation bi jóge Daaru Alimul ñëw ci njabootu sëriñ Daam Abdourahmane Lo waaye fekk sama xalifa boo xam ne nag sëñu màggantukat doom muy bàyyi sëñ bàyyi Daam Abdourahmane Fall ne naa wax ci seen tur li tax ñu tuddee bis bi seen Dame Abdou Rahmane loolu jàpp naa ne xëy na bëgg fedd li ak dëgëral la waaye ku xam dara ci histoire yoonu murid buñ ne njabootu Serigne Fallou tudde nañ Serigne Dame Abdou Rahmane Lo bis kenn du ne lu tax ndax lan Cheikh Mamadou Fadel mi ñuy màggal sëriñ tubaay léppam lu sëriñ tubaa fonk mu fonk ko lu ñor sëriñ tubaa ñor te sëriñ daam abdurahmaan nag lépp sëriñ tubaa la woon bokk ci taalibe yi gën a jege ñi jiitu ñi sëriñ ëpp ab cër ci sëriñ tubaa ñi sëriñ tubaa gën a wóolu gën leen a loolu sëriñ daam bokk te lu ci nekk manis na koo indil firnde boo ko jotaay bi laajoon doyloo gi weesuwut li li gënoon a ñor Sëriñ Tuubaa mooy alxuraanul karim sëriñ daam doyoon na ko ci ba mu jël njabootam jox ko ngir mu jàngal leen yar leen ñu bari ci ñoom moo leen jàngal alxuraanul karim ci ay góor ak jigéen du wax sax njaboot ba ci waa kër gi am na ci ñoom ñoo xam ne ci ron sëriñ daam lañ àggalee si alxuraan ko wóoluwut doyloo ko doo ko dénk njaboot waaye ku ne Cheikh Abdourahman Lo Cheikh Modou Fadal la ñuy màggal kon ku baax lañuy ñuy màggal jaamukatu yàlla ku dëddu àdduna am murid sadiq loolu it ku ko tudd tudd sëñ Daam Abdourahman Lo mooy koo xam ne taalibu sëriñ Tuubaa boo xam ne ba mu ba sëriñ bi wootee fekk mu nekk ci daara ja di jàng xam-xam la wuy si woote ba wax ne dafa gàddaay te gàddaay dellu bokku ci delluwaatul njaabur benn yoon ba ni mu wàcc liggéey ñu andi Tuuba la sëriñ bi defoon ci moom it bis bu set da doon yokk sëriñ Alaaji Njaay ñu ne ko léegi bokk na ci kuy naafila ñaari rakka kaamil alxuraanul karim te sëriñ Basiiru nee na diir bu yàgg la ko def te mujj gi boobu mag la nga xam jàpp nañ ne waroon a tële kon kooku it bu ñuy ko tuddee bis ci kër sëriñ Fallou jaadu na ndax Serigne Fallou rek ku ñoroon waaye it nag ñu seq lu bari ku la jàngal alxuraanul karim ba noppi sampal la kër xam nañ ne ki jiitu ci kër Serigne Mamadou Fadil soxna Aïchatu doomi Serigne Daam Abdourahmane loolu Serigne bi jox ko ko ndax ab jarbaatam ak moo ko way juróom soxna Amina ñoo bokk Serigne Mamadou Anta Seye waaye sëriñ bi doyloo ci bari nag ndax du kooku rek la ko jox joxoon na ko soxna su ñaaw yow xeetam joxoon ko soxna Jóob Mbàkke di doomam ginnaaw ba sëriñ Moodu Mustafaa mottali yéene ja yóbbu fa soxna muslimatu kon moom ñu nekkoon ci ronom ci wàllu sëriñ Tuubaa amul ku leen boole kon loolu ak doyloo ak fonk ak wóolu mënta weesu foofu waaye itam nag doonoon koo xam ne it murit yépp la jaxasoo lool murit yépp la séqaloo sëriñ Moussa Abdul Xaadir nee na moom sëriñ bi mas naa wax ne sëriñ daam kaay séddaleel ma ndax yëg naa ne fere yi koo ci séddale loolu mu séddi xaritam te maa yow ñu bokki xarit boo séddalee samay xarit danañ am loolu cër bu rëy la loolu sëñ dam am na ko kon bu ko njabootu sëriñ Fallu tudde bis wàcc nañ dolli ca it sëriñ ab sëriñ Daam Abdourahmane sëriñ Fallu du doomi sëriñam waaye mu jàngal ko alxuraan sampal ko kër waaye teewul nag mu warmal ko lool jàppe ko doomi sëriñam tudde woon na ko doom kooku mook sëriñ Moustapha Lo ak sëriñ Lamin ñoo bokkoon way jur ay njabootam jox tey jii sëriñ Bachirou Lo mii di xalifa sëriñ Ndam fii ci kër sëriñ Fallou lay tarbiya ko wàcc léppam sëriñ Fallou rakkame di sëriñ lañ ko tudd kon yu baree bari moo leen boole yoo xam ne ndokk bi ko mbokk yi xamee ba tax ñëw cere ko cër bii kon mu doon bind yi war a jàng nag yu war cee jàng bu baree bari taxawaay bi nga xam ne sëriñ Ndam amoon na ko ci ron wooteeb sëriñ Touba féete woo ci loo xam ne it bokk na ci li gënoon ñor sëriñ bi daaru am daaru alim xabir ba mu ko sosee ba dël ko fa ba ni mu ñibbee aljanna génnal mësta xëy te jàngale wu njàng moo xam ne ak yar lay ànd ak ku mu nopp ci yow da nga ba noppi mën a jàngale kon day koo xam ne sëriñ fàllu ak njabootam mënuñoo ñàkk foog sëriñ daam ndax day koo xam ne yoon wi yëpp la ñëpp ku la liggéeyal ndax toolub Sëriñ Tuubaa bi ku gënoon ñor muy alxuraan moo ci nekkoon di ci liggéey am ci ay doom ay sët boo demee dara Abdou Khadr ngay dañ naa la diw sëñ naa jox misaal sëriñ gaawal sëñ daam jàngal la ko jàngal sëñ Moodu maamam jàngal sëñ Moodu Roq ak sëñ Hamidou ñetti ajjiraat yu wuutee ci ron kenn kilifa ku jàngal alxuraan lu barkeel lu am kon euh, kaddu yi mënta gudd ndax jotaay bi ñu demee waaye daal euh, njabootu Serigne Fallou sëti Serigne yi def ngeen lu am solo lii moo tax kon ñu bëgg nit ñi roy ci taxawaay yu mel ne Cheikh euh, Serigne Dame Abdourahmane solo lool ci yoon bi di kilifa waaye Serigne bay woon ko xel am ko joxee daara yi dénk ko njabootam taxawu ko ci taxawal ko këram boole kook murit yëpp kenn ku ne séq ak Serigne Dame ñépp ku la jàkkaarloo mag ñi nee ñu bu ma sànni dajeeg Cheikh Ibrahima Fall daawuñu joxante loxo dañuy songoo xaritoog ñëpp ñëpp di ko fekk am nekk fu ku ne nit siyaare na sëriñ Fall bi wax nañ ne ay yoon daan na ñëw daarul ay mu xamante ko si siyaare si kon muy sëriñ boo xam ne it euh, néew na ci sëriñ daara yi ndax jàngal ni bu noppi mu ñeme la waxtu ne man daal nemmeeku si yóbbu. bàyyi ndaam am na lu mu wax léegi ci loo xam ne moom du ma ko wax ci kaw day wane ne du jàngalekat yëpp lañ ñeme maa ngi jégalu la ci ma wa rahmatulah. Cheikh Fallou. Cheikh Fallou. Cheikh Fallou laa. bismillah. Sëñ Fallou. ni ma Cheikh Fallou. ana soppi alaaji Fallou laa.